mais keroog bi ma gis mu def loolu dugg ci géew bi nga ñëw ànd ak moom euh, jàpp ci loxoom génnee ko lu tax bàyyi woo ko mu yeggal ambiance bi. waa def na li mu war def bi mu defee ba xëpp suuf dara des ci lu dul war a ñëw ci Lac de Guiers aal moo tax ma téye ci loxoom ndax may bàyyam maa ko yoroon ci ñeenti junni te dootuma wax fi mu toll moom ku dul Aziz Ndiaye doo bàyyi Ndiaye ëppoo ma doole ci Balla Gaye Balla Gaye ànd nañu ci ñeenti junni ba fii mu toll mosuma xool ci biir bët ku rus la ku ma jox cër la ma su ma ko teg lu mu tegoowul soo amee combat sama lex bii dama koy teg ci lexam ci mikaay yi sax maa leen di tànn man mii waaye li ma jaamu làmb yàlla bu ma ko yàlla att yow mal xiyaam ba nga laaj ma leneen.